wa baadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi gannaaw bu ñu santee suñu borom subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi leen di bi gën a sell mi nuyu islaam di leen balu xaq di leen baal di ñaan borom bi subhanahu wa taala mbor ñu jégal di amaat kontaan ak mbégte fas yéene la ci waat ci jotaay fàttaliwante yi baaxoon di ànd ak yéen mu aju ci tafsirul quran karim ñu ànd ak yéen <coughs> ajuma bu jot tey doon euh, ñeenteel jotaay gannaaw tamit ci saaru mag mi di suratul ba ci waxi borom bi subhanahu wa taala mu doon wax ne euh, qul inna al awalina wal axirina majmuuna ila miqaati yawmin maalum summa innakum ayuha addaaluuna almukadibuna la aakiluna min shajarin min zaqum famaliuna min albutun fa shaaribuuna alayhi min alxamim fa hada nuzuluhum yawma diin mooy gannaaw bi mu tuddee ñii nga xam ne way texeet lañu way ay ay lañu leeral seeni mbir ak seenu nekkin ca sawara tudd na yeneen aaya yoo xamee ne ay dalil ay adilla ay barahin layu bir yuy tegtale wala di wane kàttanu yàlla gi ak wéetam gi ci bind bu yéeme bi nga xamee ne bind na ko mooy kawn bi loola ngir wan ki nga xamee ne moo weddi yàlla mooy mu xam ne weddi nga tegul fenn loola ci la continuer euh, mujje tëjee saar bi wane wàccuwaayu ba tey way ci xewadi fàttali ko kazalika wane waat wàccuwaayu way ci xewadi yi ak ñi nga xamee ne ñoo daan jiitu ñi njëkka daan bu nekk ci ay yiw loola mel ni day gën a di gën a yaatalaat li xam ne jëkkoon na ko tudd ci saaw yi te junjun ko ca njëlbeen ga euh, su ko defee borom bi subhanahu wa taala wax na ne nahnu xalaqnaakum falaw laa tusaddiqoon borom bi mu ne nahnu mooy ñun yàlla borom xam-xam yi nahnu waxoon nañu ne nuun wa nuunu in azama nafsahu borom xam nga ne nuun in azama nafsahu aw in shaarakahu siwa saa wu jëfandikoo nuun benn kuy màggal boppam la wala koo xamee ne nekkul moom kenn fa am ñu ànd ak moom yàlla su ne nax nu nag mooy ngir màggal boppam la li ci mooy mooy man yàlla ci suma rëyaay ak suma màggalee ni ma toll xalaq naa ko maa leen bind yéen ñëpp doomu aadama yi falaw laa lu tee ngeen dëggal wala ak a neexoon ngeen dëggal ko te li jàllu li jàllu te yella mooy ngeen dëggal te mooy yéen njëf yëpp maa leen bind ngeen bàyyi ko ci ñàkk kon da nga ñu war a dëggal ne dekki lu am la ndax ki mën a amal kooku ci boppam loolu loola yàqu wala loola am jafe-jafe wala am problème mën koo réparer réparer moo gën a yomb fent mooy defar mu teg ci ne afara aytum ndax gisu leen wala ndax gis ngeen maatum noonu li nga xamee ne moom nga ñuy génnee mu nekk man yi ndax seetantal ngeen ko ndax càmbar ngeen ko ndax jàng ngeen ko ndax toog xelaat ci li nga xamee ne ndox lay doon bàyyee ko ci ndigul góor wàcc ci ruuxumu jigéen nga xam ne ndox rek da ki génnee génnee ndox rek moo dugg fa mu dugg borom bi nee na antum ndax yéen ko taxluqoonahu yéen a ko bind mu mujj nekk doomu adama di góor wala muy jigéen am nahnu wala ñun yàlla alxaaliqoon ñoo ko bind laaj la boo xamee ne dëgg-dëgg ku am xel dana xam ne doomu aadama bindu nga borom bi mu ne ne mooy doomu aadama ju kocc bind ba fet lool yéen yéen ko bind wala man yàlla maa ko bind imaamul qurtubi rahimahullah mu ne lii ixtijaaj la ala almushrikin wa bayaanu lil ayati al ula yàlla dafa bëgg a wàccee lay ci kaw ñi bokkaale yàlla ba pare aaya bi day leeral aaya ba ko jiitu woon ndax dafa mel ni maanaa bi mooy fu borom dane bu ngeen saxalee ne man maay ko bind kon war nga nangu maay ci moom war nga ñu gëm liman ma la ñu wax loolu la bokk na ca mooy ëllëg dana leen dekkal moo dama tekki nax nu ñun yàlla ba tey mooy man yàlla qaddar naa ñoo dogal nattale bay na comme seen diggante almawta dee ñun ci bopp man booy man yàlla daal maa dogal atte ne yéen ñëpp da ngeen dee mooy dee daal mooy mbir moo xam ne amut lenn lenn lu ci mucc loo xam ne mbindeef la ki féete ca kaw ak ki féete suuf buur bi ak ku dul buur ki am ak ki ñàkk yépp mu tekki ne baa nga xam ne day ñun bi mas bokki ne nekkum ñu mooy daal mooy nekku ñu lott nga xam ne nit mun na rëcc wala mbindeef mun na rëcc ba am fu làqatu tëddee kon mu ne ala an nubaddila amsalakum mooy fii beneen mooy wa maa nahnu mooy mënuñoo raw mënuñoo jiitu wala rëcc ñu ala an nubaddila ci ñu weccee remplacer am taalakum ñu mel ni yéen mooy daal am na kàttanu alak leen jëlee leen fi andi fi ay nit yu bokkut ak yéen nit ñoo xam ne ñooy gën a topp yàlla ci yéen comme ni ko waxee ci benn in yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi xalqin jadid su neexee yàlla mu jëlee leen fi ñëpp andi yeneen mbindeef yu bees. ndax ñi fi nekk jamono ji jiitu fi woon am na ñu leen fi jiitu woon ñu leen gënoon kon yàlla mën nañ fay jële mooy andi fi ñu leen gën ba tey moo tax ala an nubaddila mooy am leen ñun bi mas na ñuy ñu woy lottu wala ñoo xam ne mën nañoo raw mën nañoo jiitu daw la mooy ala an nubaddila ci ñu ñu wottee remplacer am salakum ñu mel ni yéen wa nun si akum ñun ba tey lottuñ pour sos leen fii maa la taala moo ne ci lu ngeen xamut loola mooy daal fu mel ni yàlla muy wane ne man lopp ngir mun leen a dekkalaat ëllëg bind leen ci bind boo xamee ne xamu leen ko woon seen xel yeggu ca nga xam ne ci xulaasa dafa bëgg wax rek ne yàlla ko am kàttan la alak leen yàlla ko am kàttan la dekkil leen ëllëg kon lii ki am xel wala ki weddi ak dekkal war na cee jàng war na cee tiit borom bi subhanahu taala wala qad alimtum wala qad ci dëgg-dëgg alimtum xam ngeen an nachata al ula sosu bu njëkk ga mooy xam ngeen ne yàlla ci boppam moo leen sos amal leen ngeen jëlee ci ñàkk jamono bi nga xam ne nekku leen dara mu bind leen ngeen bàyyi ko ci toq maniyu mu ba mu toq maniyu boobu wala ma di ko nekk alaqa di lumbu dereet lumbu dereet boobu ji nekk mudaxa mooy benn yàpp loola ci la gannaaw bi mu defal leen dégg defal leen gis defal leen xol ba ngeen mujj judd nekk ay nit yu mat sëkk borom bi ne lii xam ngeen ko falaw laa tadakkaruun wala falaw laa tadakkaruun waaye lu tee ngeen fàttaliku lu tee ngeen mooy teewlu xam ne yàlla am na kàttan pour mën leen a delloo ci waat dekkalaat leen comme ni mu leen bindee comme ni nga ko waxee ci ay na awala yadkuru l insaanu anna xalaqnaahu min qablu walam yaku shay'an ndax doomu aadama munta bàyyi xel fàttaliku ne ñun yàlla ñoo ko bindoon balaa dara nekkutoon dara yàlla taxalu ci njàngale loolu nga xam ne dafa am ci doomu aadama lu muy gis teg ci bët toq man yu bu génn nga xam ne su génnee ci biti du jëriñ dara bu nekk ca biir la koy toppatoo fa muy jaar yëpp doomu aadama bi lott na ci waaye xam ne ni toq man yi moo wëlbatiku nekk doomu aadama mu wëlbatiku demaat demaat ci beneen misaal boo xamee ne ci wàllu suuf si leeg mbay muy xujja beneen buy tegtale wiitam gi ak kàttanam gi ne yéen doomu adama yi xamal leen ma jiw wi nga xame ne yéen koy sànni ci biir ban bi ndax dëgg-dëgg yéen yéen a koy sos mu génnee ay ay meññet ay gàncax ba màgg ak fu muy am dugub dugub jooja mun a nekk dund moo tax mu tekki ne afara aytum ndax gis ngeen maa tax rusoon li nga xam ne yéen a koy ji ci biir suuf si a antum ndax yéen tazraunahu yéen a koy bay mooy yéen koy saxal am na xam ñun wala ñun yàlla azzaariuuna ñun ñoo koy saxal ndax ñun ñooy war mu génn ci biir suuf jaar fa muy jaar ba mujj nekk mooy pepp mu ñu lekk su ngeen nangoo ne yàlla moo ciy génnee pepp mi mooy ci génnee mbay mi kooka ndax munta delloo ci way dee yi ñu delloowaat mooy bàyyi ko ci suuf di nekk ñuy dund ndax suuf si mooy pepp mi jamono bi muy dugg ci biir suuf si dafa dee dafa nga xam ne boo ko tegoon ci suuf ci kaw suuf si mënu def dara bi ko suuf ndox jaar fa jaar jaar yam jaar mujj na nekkaat beneen gàncax gi dund kon yàlla ko am kàttan mu teg ci ne su su ma neexoon man yàlla pepp mi ngeen jël dugal ko wala pepp mi nga xam ne dugal nañ ko mu sax ba màgg ba nekk gàncax gu rafet su ma neexoon mu mujj nekk mooy benn dóobu ay poñet yoo xam ne du ngeen ko mën a bu ñu neexoon la jaal naaw dañ ko def xutaaman muy mujj nekk ay poñet xutaam nekk benn mbir moo xamee ne mooy mel ni lu lakk ba funa wala mu nekk loo xam ne dafa yàqu ba nit ki mënu koo jëfandikoo nga xamee ne doomu aadama koo jëfandikoo ci Euh, wàllu dund mën ko jëfandikoo ci wàllu kont ndax xutaam imaam Xurtubi mu ne alhachimu alhaalik alladi laa yuntafau bii fi mataamin wala gaza mooy lu yàq loo xamee ne mu ne su ko jëfandikoo mënuñ ko lekk mënuñ koo dundee borom bi subhaanahu wa taala xamal leen ñaari mbir kon am na xewal gu rëy gu nañ jox ci wàllu mbay ñu war ko sant ñaare bi ñu war cee jàngee xam ne ki dundal lii mun naa dundal kadalika way dee borom bi subhaanahu ne loolu bu ñu neexoon la jaal naaw ñu def ko xutaaman muy ay poñet yoo xamee ne fa zaltum ngeen mujj tafakkahoon nga xam ne da ngeen daal di di tiisu di di métudlu ca mbay moom nga xamee ne mooy yàqu te léegi mu dal ay nit bay ba bay ba toll fu mu gën a rafetee benn ndox ñëw yàqu ko wala sawara ñëw yàqu ko walla leneen ak leneen ñëw yàqu ko su ko defee kon doomu aadama bi su lu amee tamit dafay nekk rek di métudloo ko tiislu waaye du ca mën dara mu ne ñu innaa naka ñun yàlla de la mugramuuna ñooy ñi nga xamee ni ñu ko doon ñu la ñuy ñun la ñuy teg tuuma wala xaraam ma daa innaa la muhammaluuna al xurma boobaa dañu naan jaab yàlla su borom subhanahu wa mooy li dogal li ñu mel mooy daal dépasse dépasse bi mu waroon a jox mujj na dem wala ñoom seen bopp ñoom doomu aadama yi fa zaltum tafakkahuun njàqare ngi ñu mujjee ba pare di wax naan inna la mughramuun mooy daal ñun mooy sànku nañu ñun mujj na nekk ci ay bor yéen deboon mënatuñ koo fay yéen yaakaaroon mënatuñ kon ci yi ba mu toxalu foofa ne sax mun naa am duñu wax ne inaa la muhramuun waaye dañoo ne bal li fi nekk nahnu ñun mahruumuun dañoo xañ wërsëg lañu xañ mooy lañ dugaloon ndax muhramuuna mu gi dugal nga lenn loo xam ne am na doo ci doon sàkku loolu amatoo su fekkoon ne loolu lépp ba tey bor bor fekk na waaye ñu wëlbatiku daal ñun daal dañoo xañ wërsëg lañu yàlla xañ borom bi toxalu ba tey ci beneen jàngale boo xamee nii niroo naag ba ko weesoon la wa adama mu see jàngee ngir gëm dekki ba tey mu ne afaraytum ndax gis nga al maa ndox alladi bi nga xam ne naan ndox mi ñuy mu nekk ndox mu neex ki mar mu dañal maram borom bi ne antum ndax yéen anzaltumoo yéen a ko wàccee minal muzni mu bàyyi ko ci niir yi am nax nu wala ñun yàlla al munziloon ñoo ñu ko wàccee ndax niir yéen yéen a dem ba ca biir mooy xotti ko wala ndox yéen ko fa def mu wàcc wala ci kàttanu yàlla la wàcc imaamul Xaazim rahimahullah mu ne borom fàttalikoo na ba tey xéwal bi nga xam ne mooy xéwal wàccu taw nga xam ne doomu aadama mënu koo wàcce yàlla rek ko moo ko mën a wàcce na saa bu ñu neexoon jaal dañ koy def jaajël mi ndox mu wex xat ndox mu sax xorom lool boo xamee ne doomu aadama du ko mën a naan du ci man a mooy bay du ci mën a jëfandikoo dara ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne jaajël mooy shadidul muluhati mooy ndox moo xamee ne xorom sa dafa ëpp alxasanul basri moomu ne murran zuaafan laa yumkin shurbu mooy ndox mu wax xatt moo xamee ne mu ne su ko naan borom bi ne fa law laa tashkuruun waaye lu teewoon ngeen sant wala ma yéen lañ ko woon ngeen sant yàlla ci xewal yu rëy yi mu defal moo tax mu rot ci xadis yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne wala ñu ne yonent bi su naanaan ndox dana am alhamdulilahi alladi saqaana azban furaatan bi rahmati maa ngi sant yàlla mi ma naan dal ndox mu neex mi ci yërmande wala ñu jaalhu yani malihan jajan bi zulumina dafa ko mu nekk ndox mu sa xorom wala ndox moo xam ne dafa wex ngir suñu bàkkaar ndax bu ñu toppoon suñu bàkkaar ndox mi dana woo borom ci beneen exemple ci ay xewal yoo xam ne jox na ko doomu aadama mu laajal afar ay ndax yéen wala ndax gis ngeen annaara sawara lati bi nga xam ne tuuru na koy taal muy leer ngeen di ci jëriñu muy bàyyi ko ci garab yi a antum ndax yéen anshaatum yéen a sos sajarataha garabam nga am nahnu wala ñun yàlla al munshi'una ñoo amal garab ya ndax lu waay mën ci garab la benn ca jamono boobu li xew léegi xewatul waaye lu cee wax ja wér ga day des nekk lu wér booba lañ daan def mooy wuti ay mat di ñu dem ba jamono mujj gi karas yi am waaye karas yi ba tey fa muy bàyyi ko ci biir suuf la duudu doomu adama di liggéey ba ci wàllu courant bi ñu dem leer gi commencé di demee beneen boor waaye ba tey loolu doomu aadama ay jumtukaay yu muy jël ay mabaat yu muy génne ci biir suuf si la koy liggéey borom bi neen yooyu yëpp ndax yéen yi na ko wala man yàlla may ko a bind garab yooyu te ña nga xam ñooy taal matt yi wala ndax yéen a bind pétrole boobu yéen ñi xam ne yéen a jëfandikoo pétrole bi wala yéen yéen a créé courant bi cosaan ga nga koy dawal ak yooyu wala ñun yàlla la fii comme ni ko euh, borom xam-xam waxee mooy doomu aadama yëpp maase nañ xam ne loola yàlla mooy ko def borom bi subhanahu wa taala ne nax nu ñun dee jaalnaha ñoo def loola tazkiratan mu nekk fàttali ak waare wa mataan ak yóbbal lil muqinin ñi nga xamee ne ñoo wóolu yàlla mooy yii daal muy sawara dañ ko def mu fàttali nit ñi ci sawaray ëllëg li nga xam ne mooy naaru jahannam nga xam koo gis muy tàkk ak nag mel xelam daj mu ragal yàlla ragal mujj la mataan mu nekk loo xam ne nag nit mun na cee bànneexoo ci xeeru jaaru na cee togg mun na cee leerlu yu bëri loola lil muqin la comme ni ci xadis yéen mu ne naarukum haadihi allati tuuqiduuna juzun min sabaina juzan min naari jahannam mu ne sawara si muy taal benn xaj ci juróom-ñaar fukki xaaj ci sawar jahannam nga xam ne benn lañ jëloon foofu xaj juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki moom la ñu jox fa qaalu ya rasul allah in kaanat la kaafiya mu ne donte muy tawar si ak ni mu mel ni mu doyee nii mu ne walladi nafsi bi yadi laqad faddalat aw la fussilat alayha bi tisin wa tisina juz'an kulluhunna mithlu mithlu xarriha nga xam ne daal mooy sawara su jahannam nit mënu koo tasawur ma to mataan muqiim mooy manfaatan lil musafir fii muqiim mën a nekk ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy tukki di di di di di taal waaye waaw euh, min foofu ci aw aw xada yuqidu muqid wala comme ni ko Ibn Abbas waxee mu ne muqid al musafiroon waaye al mujahid mu ne lil xaadir al musafir mooy al mustamid te naar yi min annaasi ajmain mooy ñi nga xam ne daal ñooy ñooy jëfandikoo mooy sawar si yépp la ndax mu al muqwi moo doon cosaan bi ñu ne mooy kan nazil fil ardil xawa mooy koo xam ne dafa wàcc ci suuf soo xam ne suuf su sori la nga xam ne ay dëkk jegewul ñu mel ni aaya bi dafay wane ne sawara si ba but al badu ñu nekk ci àll bi ñuy tukki yëpp dañ ciy jëfandikoo ndax ñoom li ñu koy jëfandikoo moo gën a bari ñoom guddi buñ soxlaa leer sawar la ñu taal ngir mooy ndeng-bent rab yi sori leen moom la ñu taal ngir ki réer mun a am mooy fu gindeeku ak yeneen ak yeneen yoo xamee ne ala kulli haal borom bi subhanahu wa taala di wax na nag fa sabbih na nga sàbbal bismi rabbika ci turu sa borom al azim mu màgg mi mooy sori la sa borom lépp loo xamee ne mushrikuna yi ñu ngi ko koy jegeen ko melal ci ay melokaanu lopp wala melokaanu manqué nga xam ne mel ni day wax naan subhaana man xalaqa hadihi al ashya bi qudrati tut naa sell ak bind mbir yi ci kattanam wa saxaraha lana bi xikmati tàggatal ñu ko ci xikmaam subhaanahu ma azama sha'nu mooy tudd naa sellug yàlla bi nga xam ne mbiram màgg na loolu wa akbara sultaan nga xam ne daal borom subhaanahu wa taala tudd nañu yëpp tàmbalee ko afaraytum ma tumnuun a antum taxluquun am nahnu lxaaliquun afaraytum ma taxrusuun afaraytum ma alladi tashrabun ala kulli xaal yëpp donc suñu borom subhaana tudd ko tudd afaraytum naar la ci tóoroon yii yëpp ngir fàttali doomu aadama borom bi subhaana taala mu ne fala aqsimu bi waaqi'il nujuum léegi wëlbatiku waat xam ne lii nga xamee ne mooy alquran jéeg ci aju mooy mbir mu rëy la wax yi wax yu màgg yi mbir yu màgg la xam naa incha allah taxaw fala aqsimu bi ma bi ma ba beneen jotaay incha allah taala di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu dégg topp di wax sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim seen mbokk taalim Bachir wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh